259 wala ngeen woo ci 77 575 50 25 33 824 gmail point com te établissement Touba doomi réew mi la fi nekkal. <laughs> waaw saa buy tooy auzu billahi mina ñoo ngi nuyu assistance bi fi nekk yëpp muy journaliste yi di nuyu sama mbokku mbër yi di am contentement bu baax a baax a baax teew fii pour waxtaan ak yéen lu tubaab di wax la répétition est pédagogique daanaka li ñu bëgg a wax yëpp ñi fi jaar wax nañ ko muy Gris Balla ak Eumeu d' abord dañuy féliciter suñu U17 yi yu doon football démb defate nañ jaloor ci sport lépp di wane ni liggéey la dañu investir ci sport bi moo tax football macha allah jéego yi muy teg ku ne gis na ko ci Sénégal ren jël nañ fi gars yi ñuy wax cinq rek mais am na yeneen ak yeneen yi nga xam ne kii ko vraiment di leen félicité bu baax di wax dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg te sport bi mu ngi avancé bu baax a baax loolu nag moom lañ bëgg ci làmb ji te gis nañ ni jéego mu ngi am comme lu bu giri wax keroog dem nañ palais président recevoir ñu yóbbu suñu doléance doléance yi yuñ ci wax d'abord yu baree ngi avancé que man président bi la na ma fii di mu wax ministre dafa waroon ñëw pour ñu teg pour ñu teg def benn euh, kii pour tax waa bureau pour def mutuel de santé bi déjà boobu defe naa taxaw na léegi mu des ci accès ci accès logements sociaux yi te ñu ngi ci am yaakaar bu baax a baax comme lu comme lu comme lu mu wax te emploi des jeunes yi tamit gis nañ ni président mu ngi ciy def jéego bu baax a baax a baax te Sénégal ñun export nañu am yàlla ci la ñu nattu ku jàppale sport ñun nga jàpp suñu rakk nga jàppale parce que tey yi ñuy wax yëpp ñu ci bénéficié wu mën nañ ni sax du ñun suñuy rakk la suñuy jarbaat parce que ñun ñii tey xam nga ku ci nekk yàlla xaw na la dimbali boo feebaree isam ñàkkul foo fajo wala ñàkkuloo loo fajoo tey isam ku ci nekk yàlla dimbali na lu mu ndaw ndaw am nga kër am nga foo dugal say waajur ba tax na accès même accès euh, logement yi du sax ñun ñoo ciy bénéficié wu suñu rakk yi te dañ ne kenn warul ah, mujjee puso mu réer sa loxo te tey fu làmb toll ñun am na noo xam ne buñ ko buñ ko buñ ko doxalee rek maanaam dañu dañu mujjee puso mu réer te warul demee noonu vraiment di santaat encore yàlla bu baax ah, di comme li ma wax tamit àdduna kuy woote lu dul jàmm rek daa fekk nga am jàmm mais bu ñàkk jàmm ñëwee ku nekk xam valeur jàmm ba tax na am na luy Sénégal li nga xam ne mu ngi raam ci ñàkk bi la jëm te bu foo amee kër dafa gaaw a yàlla bu mu fa jëm nag kenn ñaanu ko parce que ñun Sénégal la ñu dëkkee suñu famille fi la ñuy nekk suñu njaboot fi la ñu nekk tey bu jàmm amul woon toogaay bii du am toogaay bii du am ñu fi toog ba yaatal ba tax na loolu jàmm-jàmm ko gën ñu ngi ñaanaat encore ndaw yi jeunes yi ñu bàyyi seen xel am na li nga xam ni li may wax chaque fois yàlla moom mooy joxe nguur kenn joxe ko contre nguur sax day day day bokk ci ci weddi ndogalu suñu borom. nit nag mën nga bañ a ànd ak moom ci. waaw ci ay liggéeyam ak yooyu noonu. mais yàlla moom mooy fal nguur kenn joxewul kenn nguur. xam nga ba tax na ñu bàyyi bàyyiwaat xel xam nga bàyyi violence bi ci dëkk bi parce que Sénégal tey ñëpp pays teranga lañ ko xamee bu investisseurs yi ñëw fii di investir parce que stabilité dëkk bi moo tax bu ñeneen di ñëw di wax pays de la teranga parce que jàmm-jàmm Sénégal tey jàmm jooju la fi ñëpp xam. ba pare dafa am lu lu leneen lu nekk ci ginnaaw gis nañ dëkk yu bari yu mu am ci Afrique yi lu fa xew après muy ñoo ngi yaakaar pétrole gaz yeneen ak yeneen tey ñuy noonu Sénégal yu bari ñoo ngi ko entouré di xaar rek ba dara xew ñu dugg ci caxat caxatee suñu yëf loolu nag ñu ñu nekk ci dëkk bi ñoo ko war a njëkk njëkk njëkk bañ muy taxaw ci jàmm ku ci nekk am nga droit far fu la neex comme ni ko gars yi waxee ku ci nekk am nga droit far fu la neex ñun ay nit la ñëpp nekk Sénégal nekk ay ñu ci bari nekk ay jullit daanaka bokk bokk ku nekk am kuréel bokk ñu nu ñuy jaamoo yàlla mais diine ku ci mën a am wute waxumala ak politique politique yëfu àdduna la dafay jeex mënuñu fexe ba kenn faral ñëpp faaw ñuy farfee ñuy farfale mais tamit ku nekk na nangul moroomam position bi doone fii laa bokk rek keneen ku bokk fële dama koy xaas dama koy saaga wala loolu xamee wuñ ko Sénégal te loolu du démocratie dañuy wax Sénégal pays démocratie la te démocratie mooy ku nekk far fi nga far am nag loo layalee fi nga far mais du dama far fële kee far fële lu mu wax du noonu même lu mu baax baax lu mu wax lu mu kii kii du dëgg loolu nag moom dañ koy ñaawlu rafetul ci dëkk bi vraiment di remercier encore euh, presse bi xam nga di ñaanal président naal yi mu naal yàlla dimbali ko ba mu mottali ko puisque bu yéenee yeggee Sénégal yëpp nekk ci jàmm. Sénégal la ñun ay sénégal ay citoyens lañ. xam nga vraiment ñu ngi wax yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal. bëgg-bëgg yi ñu bëgg ñun ñëpp yàlla dimbali ñu mën koo mottali incha allah jërëjëf koy ñëw waaw asalaamaaleykum ngi sant yàlla bu baax juri ci yonent bi sant suñu ay ñaari waajur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 les sites internet ak euh, diaspora bi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. mooy le huit bi passé dañu demoon fële ca palais de la république euh, le président Macky Sall wowoon ñu fa pour ñu waxtaan waxtaanu échange ak moom mu xam ni mu xamal ni ñu làmb am na ay jafe-jafe ñun rek nekk ñu fa woon. composante làmb yëpp a fa nekkoon les communicateurs traditionnels les anciens couloirs les sages les promoteurs mantam branche yi nga xam ne dañu ngànk làmb yëpp ñu ngi fi woon kon boog le monde de la lutte président Macky Sall invité woon pour am échange ak ñoom waxtaan boobu nag waxtaan bu yaatu la li li waral jotaay bi fii nag mooy jotaatu jotaayu waxtaan nag rencontre maanaam tey expliquer euh, lañu ñu fa jëlee ak avancement yi nga xam ne tey ak lu lu bari loo xam ne tey waxtaanee nañ ko fa muy suñu ay doléance yoo xam ne en toute sincérité euh, bi ci njëkk mooy jafe-jafe bi nga xam ne mbër yi ñu ngi koy dund làmb di ko dund bi ci njëkk mooy ñëpp xam nañ ni. reconversion des lutteurs dafa am dafa am manquement te président lancé xëyu ndaw ñi ca jotaay ba ñu toog mu xamal nañu jox nañu benn quota boo xam ne tey ci xëyu ndaw ñi ñu waxtaan ak moom wax ko ci ñun am na ay jafe-jafe logements sociaux ni nga xam ne secteur yu bare bare bare bari dañuy am bénéfice ci maanaam mm-hmm. logement bokkoon na suñu ay mébét ñu wax ko le président suñu jafe-jafe bokk na ci couverture maladie universelle maanaam tey problème mu santé ñun tey ahlu làmb dañu am jafe-jafe boobu trop moom it moom it loolu bokk na ci ay mébét yi nga xam ne tey duñ ko ko wax mébét yooyu nag biñ ko ko bi ñu ko ko waxee ba ñu jóge fa en toute sincérité gis nañ ci ay jéego yoo xam ne tey avancé na parce que tey bërki démb rek fii la toog war a def doon def assemblée général avec son ministre Samba Ndiobène Ka pour tey ñu teg pour tey ñu teg bureau boo xam ne tey moo ŋànk mutuelle de santé bi nga xam ne tey moom lañu moom la waaw làmb yëpp bokk te nag association wala kuréel yàgg na dem yàgg na dem fële ca palais de la république ñu dig ko wala ñu wax ko mu nekk ay diir avant que ñu koy exécuter waaye benn ci yooyu nga xam ne tey président dig nañu ko en toute sincérité mi ngi am ay avancement te yaakaar nañ ni bu ñu jógee ci mutuelle de santé danañu le ministre euh, le ministre de l'habitat dina toogaat fii ay fan pour teg bureau pour tey coopérative d'habitat ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu nag dama koy partager ak suma frère yi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, wane nañ keroog seen présence wane nañ keroog ñoom ban profil lañu am ci dëkk bi wane nañ keroog ni ñoom làmb am nañ ci rôle bu mag a mag a mag a mag a mag bu ñu joué boo xam ne tey euh, tey y a de dix mille e quelque jeunes yoo xam ne tey ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla mel ni jëmm yi toog pour ne di di guddal bari na ay suñu ay rakk yoo xam ne tey euh, seen yéene seen ay engagement mel ni champion yi wala ñu raw ñi parce que tamit nous sommes partis de rien du tout parce que nag bi ñuy dugg ci làmb li tax ñu dugg ci làmb c'est pour aider no famille parce que dañuy juddu fekk suñu kër kër ku fi nekk tey fekk sa kër di saxaara ku ne làmb nit mënu ci defar ba defar ay nit xamuloo luy làmb parce que ñu fi toog ñii ñëpp tey daan nañ dem ay jamono di dem entraînement bu ñu fa jógee du ñu am lu ñu ndékkee du ñu am lu ñu lekk du ñu am lu ñu naan kon àddina dara xëyul xëy sotti waaye tey ñun ñii tey ku ci nekk làmb fay na la làmb sagal na la làmb sargal na la est-ce que nag ñun làmb daf ñu war a sargal sagal ñu def ñu lu ñu doon tey fu ñu romb ñu tàccu ñu ñun tey làmb nar a sëngéem am ay jafe-jafe ñun ñi tey duñu takku takk suñu ndigg pour suñu rakk yi nga xam ne tey c'est des di c'est des milliers de gosses yoo xam ne partout au Sénégal fépp ñooñu tey koo ci tàllal micro lu muy wax mooy dama bëgg dimbali sama ndey dama bëgg dimbali suma baay dama bëgg dimbali képp ku jege ci man ñooñu ñooñu tey ñun ñu lekk naan ci soow mi lekk ji ba suur est-ce que ñun war nañ toog làmb am ay jafe-jafe ñu croiser le bras duñ def loolu moo waral ñu toogaay bii moo waral tey ñu takk suñu ndigg pour suñu rakk yooyu nga xam ne am na si ñoo xam ne làmm moo sëngéem moo tax ñu voyager illégalement am na ñoo xam ne ci jaar dem seen yoon parce que gisuñu seen bopp ci làmb am na ñoo xam ne dañu voyager légalement dañu am dem ñu jox leen visa ñu tukki te loolu tey boo ko recensé c'est des c'est ay 300 personnes ay 300 lutteurs et quelques loolu nag tey moo waral bi ñu président de la république woowee fële palais ñu am. da war a sant ku dul sant ku dul sant nit doo sant yàlla yàlla tëbul tëb di la di la defaral làmb yàlla day jaarale ay mbiram ci doomu aadama quoi qu'on dise mooy ñu ngi koy sant di ko gërëm ci yooyu nga xam ne jéego yooyu nga xam ne mu ngi koy dox ci ëxlu làmb te làng nag sëngéem te ñuy ñaan yàlla projet yi nga xam ne mi ngi ci kanam yàlla na ko gaaw mu nekk lu lu suite loo xam ne tey lu gaaw lay doon. Euh, fa lay campé débat bi li ci des dañ ko gën a yaatal pour bañ a guddal suma frères yi yëpp ku ci nekk ambassadeur ga fa nga nekk ku ci nekk làmb tey mënuñu tudd làmb te tudduñu la ku ci nekk yaa liggéey lu tax tey foo romb Sénégalais yi safoo la tiitooroo la condamné la kon ku ci nekk am nga kàddu am nga sa mot à kon maa ngi jël kàddu yi jox ko un euh.